asalaamaaleykum waa Maroc asalaamaaleykum waa Casablanca kon ba tey ñu ngi ci journée bi muy guddik Serigne Saliou gu ñuy amal fii ci Casablanca Grand Théâtre Mohamed VI incha allahu rabbi di mbo ñaan mbokk taalibe bi yëpp ñu teew fa a ah, bu 19h jotee Mohamed ñaa jóge Sénégal ñëw waaye na tey danoo seet si sunu mbokku taalibe taalibe Serigne Abdou Karim bi ñu koy wax Seck iPhone fii ci Casablanca ñoo xam ko ci bëgg Serigne Touba ñoo xam ko ci bëgg Serigne Abdou Karim waaye ñu xam ko ci ak social kooku mooy Seck iPhone tey moom lañ seet si ñëw place am ah iPhone ku la ko jaayil ku dul Seck baaxul barke yonent bi. nga xam ne daa bokk ci ñin ko tuddee mu ci jàpp bopp ba tey bisimilah Seck nan ngay waajal bis boobu. salaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaare ñëpp ku ci ne sa tur ak sa sant ah waaw naan sëñ baake bis bi mënuñ def lu dul rafetlu ko parce que bëri na événement yu fi daan am mais bii nag moom da cee gën ci événement yi parce que boo ne guddik sëñ Saaliw loolu loolu loolu loolu loolu dafa doy kéemtaan ñu ne guddi gi ku koy amal ñu ne Mouhamed Niang mooy amal loolu kon loolu mënuñ def lu dul rafetlu loolu te it ngay sunu mbokku taalibe ci lépp loo ñu woowoon lu dul lii sax dañ ciy ñëw kon alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu woowee ci sant sëñ Touba sant sëñ Saaliw waaw naan tamit bis defe naa ne sëñ Saliou Seck arxuraan ku ko xamul dégg nga ko defe naa moom it mu ngi ci biir bis bi kon defe naa ñu ngi koy amalee fii ci Mohamed Sank bi voilà kon dama naan na ko mbokk taalibe yëpp ñëw teewe di 31 décembre muy Dakhla Marrakech rabba mbokk taalibe daal fu mu nekk muy murit Tidiane Laayeen nag ñëpp ñu ngi leen di invité ci biir bis boobu naan leen ñëw leen ñu màggal sëñ Touba màggal sëñ Saliou waaw ñu ngi rafetlu nag bu baax a baax a baax a euh, invitation beeg lépp sëñ Mbacké Seck sant dañ la bu baax gërëm nañ la bu baax di ñaan yàlla dimbali ñu ci bis boobu noonu ba lépp amee tawféex ba nga am ci lu raw sa njot ci barke Seexul Xadim jërëjëf Baay Faal bëgg nañ lool. jërëjëf Seck iPhone kon waaw Seck iPhone jënd na ci ticket yi dañoo bëgg ñëpp daal di ñëw jàpp ci jàpp ci nag wax dëgg yàlla ndax wax dëgg yàlla c'est la première fois. kon bëgg nañ ñëpp jàpp ci mbokki taalibe yëpp bàyyiwuñu kenn. salaamaaleykum salaamaaleykum waa Casa waa Sénégal ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu ñëpp di yëgal ñëpp ak ah, tey dañoo ñëw fii nag ci place Fat Mbacké mu sëñ Abdou Karim mu sëñ Mo Fallou Mbacké ngir bis bu mag bu ñu amal yu jëm ci bisu 31 décembre muy Mohamed Niang mu Serigne Saliou moom lañ jëlee Sénégal indi ko fii ci Maroc ngir ñu fas yéene bégal mbokk taalibe yëpp. ñu ngi fii tey ci place bi ànd koog sama PDG Mbacke Seck fondation Serigne Saliou man mi fekkoo yéen maay directeur bi euh, ñëw tey seet si ki ñuy wax Fatou Mbacke mu Serigne Abdou Karim Fatou Mbacke dañoo ñëw di la laaj yow tey ji bis bi nan nga koy waajalee ak bis bi lan nga ci yéene ak lan nga bis bi lan lan la ñuy xaar ci yow ci bis bi Fatou Mbacke mu Serigne Abdou Karim. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar euh, di kontaan ci seen ñëw fii tey. di kontaan aussi ci euh, parrain bi ngeen ma jox si bés bi bés bi moom sama bés la ndax yéen yàlla dogal na loo leen loo leen sumb moom maa ngi ci biir mais rawatina nag bésu Mouhamed Niang bi nga xamante ne nii c'est la première fois mu ñëw Casa dina mel bàccu gerte barki Sëriñ Fallou bés ba barki Sëriñ Fallou du yomb te su ma nee la bés ba du yomb rek du yomb bés bi dañ koy waajal boobu ba tey deux mois mi ngi nii ñu ngi ci bés bi ñu ngi ci weer wi nag luy jot jot na ginnaaw dee te Mbacke Seck su ma nee la du yomb du yomb Mouhamed Niang ñu ngi lay xaar <laughs> salle bee salle Mouhamed 5 bee no ku yeex yaakaar naa doo dugg de ah Mouhamed Niang <laughs> Mouhamed Niang yaa ngi may gis fan Mbacke bi sëñ Abdou Karim nee na ñu ngi lay xaar te ñu lay xaar ak doole nag yàkkamti la lool nag bis bi yaa ngi koy waajal dinañ ko gëm ndax lu ñu mës sumb fondation Serigne Saliou fii lu mu mës a sumb rek dugal nga ci sa loxo moo may xamal mbokk taalibe yi mbokk ñëpp ne billets yi fii ci Casa ci marché Médina ku ñëpp Mbacke wala Seck iPhone wala Bamba Touré transfert wala Mbacke PDG di ko fi am fii ci marché Médina ñu ngi ci woo ñëpp bis baa ngi noonu bàyyi ma kenn ku lim. soxna si noo def. waa gis nga. nooy waajee bis Mouhamed Niang bi. xanaa di ko waaj rek. waaw di ko waaj di teeru Mouhamed Niang waaw ndax suñu mag ji lu mu sumbul na dañ ko ciy jàppale waaw ndax lu ñu ne ma nga ca kon lii ñu ko tudde dina rëy lool ci ñun waaw dinañ waaj bis bu bu baax nag di xaar Mouhamed te loolu lañ ko yàlla def ci barke sëñ Fallou. Satou loo ciy sànni ci woo waa Majorel di ci woo waa Exix bàyyuma kenn képp koo xam ne sama xarit nga sama soppe nga maa ngi lay woo ci bis bi nga xam ne moom lañ taxawal fii te ñu ko taxawal di fondation Serigne Saliou Mbacké ngir bëggal gars yi bisu 31 décembre kon bàyyuma kenn maa ngi woo ñëpp di ci woo Bakary moom di Chéri Khady maa ngi ci woo ñëpp di ci woo Bamba Seck ñëpp ku lim juum bàyyuma kenn wa waaye woo Bamba Touré Bamba Touré transfert maa ngi ko di zone Aara Touré bàyyiwuma kenn bis baa ngi noonu fondation Serigne Saliou ñoo ko taxawal ànd ak sama PDG Mbacke Seck mu Serigne Saliou ma feggoog yéen muy DG bi luñ ci taxaw juklo bis baa li nga xam lépp bu soobee yàlla. salaamaaleykum salaamaaleykum waa Casa waa Maroc waa Sénégal ñu ngi fii tey jii ci place bay Baye Fall social. di so di dee koo xam ne di ku baax di def social mag fii ci marché Médina rawatina fii ci lu ko wër Maroc tey ñu ngi ci place am ngir bisu Serigne Saliou bi le 31 décembre Baye Fall ñu seesi woon la waa fondation Serigne Saliou ñoo la seesi woon tey di la laaj ana nooy waajee bis bi tey bisu Serigne Saliou bi ah bis la boo xamante ne day wax dëgg yàlla dañu leen di nuyu sax kenn ko ci nekk si turam ak santa mhm. di leen di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama Seydou Ibra Fall parce que tamit mbégte la ndax ku xool xamante ne la ñuy dund Sénégal ñu andiwaat ko fii ci Maroc di ko fi dund lool rek taw feex la amaanaa tamit yéen bala maa wax dara damay njëkk ci yéen yéen tamit yàlla na leen ku tedd gën a jàppale gën leen a doolee taw feex parce que tamit nit ki amul li nga xamante ne ci la juddoo yaroo ci màgge ci parce que tamit li ngeen def jéggiwaanu leen ko amaanaa wutuwu leen ko fen mbir la moo xamante ne tat da ngeen koo dund senegal ñëw fii di ko dund moo tax bu ngeen ci nekkee rek ñun dañu am mbégte ak fierté di kontaan loolu nag kontaan gi sax naa day am commencement mais amul yamukaay ndax bisub Serigne Saliou kan mooy Serigne Saliou kooku la Serigne Touba wax ne juruma kenn de am mais amaana Saliou mii saa dooma kon doomi sëriñ Touba bisam yaakaar naa ne ku di jullit waxuma ku di murit demee ku di jullit da cee war a taxaw da nga cee war a dem ba jeex tàkk moo lax bis boobu noonu ñu nekku ne bis boo xamante ne dañ ma koy yëgal man maa koy yëgle ndax sama bis la la moo xamante ne tamit dama cee bokk jéggi ne waale wu ma ko ndax buñu nee Serigne Saliou rek kenn ku ne da nga naan iskay mhm. fam la toll ci xol la mhm. te euh, dem ne nam la def mhm. nam la def ba tax ñu lay wane ah kooku Serigne Saliou rek ko commande dëgg la moo tax bisam dañ ciy tàbbi bu baax a baax di ci soññ tamit mbokku taalibe mbokku Baye Fall di ci soññ mbokku taalibe yi mbokku Baye Fall yi amaanaa nekk nañ ci dëkk boo xamante ne nag dëkk jaamu yàlla la ndax li mooy dëkk jaamu yàlla mooy xoolal ñii ngay seen ñii dañ ciy xëy di ci dox dañ naan Baye faal Baye faal rek mais lu jig njaaga ñooy njaag dëgg la ñii lu jig njaaga ñooy njaag ndax dañ naan ku ñeme dañ laa dee moo tax ñii lu ñu bëgg ah, naa ci bisu Serigne Saliou boobu dana nekk bis boo xamante ne kenn dootu ko fàtte de. dëgg la Serigne Saliou la. dëgg la bisub Serigne Saliou la. te bisub Serigne Saliou kat mooy borom xel kom ku ne xam na ne xel kom nam mel mhm. gis nga na muy mel mhm. bis boobu noonu lay mel de bis boobu mooy xel kom yéen xel komu Serigne Saliou ngeen feen di waat mais dañ ko bay dañ ko ruuj dañ ko déqi caaju ci kàttanu ku tedd ki barki Cheikh Ibra ko bay dañ ko ruuj dañ ko déqi te ndam rek lañ cay am barki Sidi Ibrahima di wax nag mbokku taali bi yëpp mhm. di leen soññaat di xamante ne mbir mi kat du dara du affaire weccoo sax wala nii wala nangam amaana dafa am gan gu màgg goo xam ne dañ koy woo ba mu ñëw te gan ku ko woo ba mu ñëw da nga moo tax kat ñuy ñu leen di wax ak ku mu mën a doon ci àddina ngeen jaayante yéen ñi nekk Maroc ñëpp bi yaa ngi nii yomb na de taw féex la cent dirham ndax amaana lii nii ngay seen ñi bëgg Serigne Saliou ñi yaakaar Serigne saaliw ndax su ma nee Serigne Saliou rek maa ngi naan Serigne Touba ndax Bamba ne woon juruma kenn waaye Saliou mi saa dooma moo tax euh, bisu Bamba boobu maa ngi leen di ñaan tike yi fu mu leen romb bu leen ko xaar tike yi fu mu leen romb bu leen ko xaar mbir la moo xamante ne moo fi indiwaat leneen de lii nii moo fi indiwaat leneen barki Serigne Touba maa ngi kontaan nag ci yéen di leen ñaanal li ngeen lu ngeen sumb ren balaa déwén ngeen ful lu ko te xam naa ne tamit lii wax la rek waaye loolu suñu borom def na ko ba pare suñu borom def na ko ndax ñooy dund ñoo nekkandoo ci digg dëkk bi naa ñooy dund lépp kon kenn ku ci nekk boo gisee sa moroom rek xam nga fi mu la toll te xam naa ne yéen ñii nii fi ngeen ñu toll ngir jëmi siriñ Touba rek ah du ngeen def bis buy échec man de xam naa ne man Baye Fall fii ci Touba Maroc ak koo xamante ne nii sama mbokk nga sama wóolare bu bés baa ñoo fay jiitu. incha allah boo ko waxee ñu gëm ko ñu gëm ko. dama la ci sànni tuuti kaddu Baye Fall ku ko xam-xam ne kenn mësu ko gis ci ndaje waaye keroog ba ma ko waxee dani ma ndaje moomu de dinaa ci ñëw ndax man bu ma wàccee rek tëdd naa loolu moom kenn ñëpp seedeel nan ko ko moom bu amee màggal bu dee kas rajab luñ mën a doon mooy nekk ca waañ wa dinu ci jàppale place am bii da koy bàyyi joxe ko bu événement jotee. boole kook di ko jox ay nit ñu fiy dallu barki sëñ Touba di taalibe di as gor di ku bëgg sëñ Touba kaddu yi rek doy na sax kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko feex mook soxnaam soxna Sukay ak soxna Marème ak ñi fekk ci place bi ñëpp suñu borom defal leen jàmm ak tew feex ngeen jëf. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi kon niñ leen ko waxee rek muy 31 décembre di guddik Serigne Saliou fii ci Casablanca incha allah rabi ñu koy ameel Grand Théâtre Mohamed 5 kon. ñu ngi ñaan mbokki taalibe yëpp ñu teew fa tey nag dañoo ñëw fii place su Ada waaye fekk nu ko fi muy sunu xarit di sunu mbokk taalibe ñu fekk fii soxna ngoone tracteur ku ko déggul xam nga ko ci Casablanca séeri Adam madame Touré moom lañ fekk fii di ko wax moom naka lay waajale bis bi ndax boobu ba léegi moo ngi ciy dox di ci wax di ci joxe xalaatam moom ci bis bi la bokk kon bisam la kon dañ koy wax nan lay ñuy waajale bis boobu nga xamante ne mooy guddik Serigne Saliou muy taalibe nag nga lu nuy def kenn du ko ci jiito muy màggal di kasi rajab di gàmm lépp kenn du ko ci jiitu kon soxna Ngoné dañ lay wax nag kan ngay waajale bis boobu bisimilah. bisimilah macha allah bisu Serigne Saliou moom defe naa ni ñu koy waajalee jarul laaj kenn ndax bis bi nekkatul sa bis bisu ñëpp la ndax Serigne Saliou fu mu wootee rek defe naa amul xàjji amul seen maanaam Serigne buñ fañ ne Serigne Saliou woo woote fële rek gars yi dañuy daw bay bëgg a yaakaar ma yaakaar ne bis boobu macha allah. jour 31 dara du yomb ak Serigne Saliou ak Mouhamed Niang incha allah namoon nañ ko parce que gëj nañ Sénégal bëggoon nañ di fekkee jotaayam waaye yàlla dogalu ko waaye incha allah fii la ko yàlla dogalee. lii yëpp ndax Serigne Saliou ñu ñëw rek daal di jàppale suñu doomu nday Mbàkke damaa bëgg na xale Casablanca xale yi Marrakech waa Agadir bàyyiwuñu fenn fenn foo xamante ne doomu aadama mu ngi ci Maroc bëgg nañ ñëpp ñu daje fa. bu ñu ko kenn nettali man moom incha allah rabbi kenn du ko neddal pour man ngeen traiteur rek ah macha allah dara du yomb. waa adduna asalaamaaleykum waa Casablanca asalaamaaleykum waa marché Médina waa Maroc ñoo ngi leen di xamal bis bii nga xamante ne muy 31 décembre ñu di ko waajal di guddik Serigne Saliou ñu ñëw tey nag ci benn place ñu koy wax restaurant Darou Salaam di fi fekk Sayer ak Bigué ñuy ay taalibi sëriñ Touba di ay taalibi yu dëggu di ñu bëgg Serigne Touba. tey nag ñu bett leen fekk leen seen place ku ne xam na ne fii ah booba namee di bi ñëwal place su seer kon tey jii fii ñoom lañ fi fekk si di leen laaj ndaka la ñuy waajale bis boobu nga xamante ne ñuy ay jàmbaar dëkk bi defuñu fi waxuñu fi lu ñaaw luñ leen di xeebee macha allah ban fi nekkee ba léegi ah fu ne mën nañ faa feeñ kon tey jii ñoom lañ seet si di leen laaj ndaka lañ lay waajale bis boobu. di liggéey dem ba doon ay doom nday doon mag ak rak ah, ku ne di rafetlu seen taxawaay ci dëkk bi ah du du du n'importe qui ci réew mi yàlla sedd na ko li may wax nii lu ma xam la waaye nag tey ñoom lañ fekk si di bàyyee seer kàddu gi. sëñ Mbacke ñu ngi lay nuyu di la siyaar baax di rafetlu teewaay bi ndax tey jii lii rek cër la quoi te yëg-yëg la li may wax rek mooy dañuy ñaan yàlla yàlla dugal ñu ci bisimilah rahmaani rahim génn ñu ci alhamdulilah rabil alamin di leen sant bu baax nag ci ñëw bi rafetlu naa ko trop. ndax bu leen neexoon du leen ci fekk dont ñu ñëpp ay taalibe lañu te comme ni la ko soxna si waxee léegi bis bi defe naa ne da nga koo woote waaye gënuñu ko bëgg ndax bisu Serigne Touba la donc li ñuy wax rek ñu ngi woo ñëpp restaurant Darou Salaam mi ngi woo ñu ñi leen xam ak ñi leen xamul ñëpp di woo waa àdduna wërngal këpp di woo waa Europe di woo waa di woo waa Maroc waay ne ñëw leen ngeen taaral bés bi di wax ne bés bi bésu Serigne Touba la bésu lislaam la ñu ngi woo ñëpp di leen gërëm di leen sant ci barke Serigne Saliou Mbacké ñow leen ñu cant bisu 31 décembre fële ca Mohamed 5 ñu wàcce fa Sénégal jëm kanam jërë ngeen jëf. waaw salaamaaleykum comme salaamaaleykum waa Sénégal waa Maroc ñu ngi leen nuyu bu baax euh, ñu tey ñu ngi fii ci restaurant Darou salaam mu Serigne Saliou restaurant Darou Salam euh, ñu fekk ci ki ñuy wax Bigué mu Serigne saaliw ak. Sayra Tall mu maam Thierno Birame borom daaru tey moom lañu seesu fii tey ci région Darou Salam ngir fas yéene waajal bisu Serigne Saliou mag bi am fii ci 31 décembre ci denk ñu ngi koy defee saalu grand théâtre Mohamed 5 bi bigee tey dañu fay jaaroon fondation Serigne Saliou ñëwoon fi ma fekkoog sama sama PDG Mbacke Seck ak kii wax gen yéen muy bi maam Cheikh mu Serigne Saliou ngi ñëw laaj kii bigee lan lay waajalee bisu Serigne Saliou bi ak lan la ci nar bu soobee yàlla bigee noo def waaw asalaamaaleykum ginnaaw buñ santee suñu waajur yi ñu ngi nuyu ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm ñun waa Daaru Salaam bisu Serigne Saliou bi suñu bés la ndax biige ku ne xam na ne dafa bëgg Serigne Saliou li ma wax rek Mbacke ne ko bés bi doon ko yàlla ci sa loxo la ko jaarale waaye ñun ñi gëm naa ne gënoo ñu sax bëgg bés bi ndax ñu ngi koy waajal maa ngi ciy woo nag bépp mbokk taalibe bàyyiwuñ tiijaan bàyyiwuñ murit bàyyiwuñ laayeen bàyyiwuñ kenn na ñëpp ñëw ñu jëmmal bés bi màggal bés bi cant-cant yi gars yi kontaan te xam ne lii dañ cee war a kontaan ñu ñëpp en tant que murit rawatina suñu mbokku taalibe organiser lu mel nii dañ cee war a jàpp ndax ñu ñëpp ci war a fier bés da boo xamante ne bés bu màgg la ñu ànd rek daal ci bégee man da loolu laa ci am daal di woo ñëpp ñu ñëw képp koo xamante ne client nga ci Daaru Salaam ñu ngi lay ñaanal yàlla def nga fekkee bés bi ak jàmm ba nga mën a ñëw képp koo xamante ne soppee waa Daaru Salaam nga waa Daaru Salaam ñu ngi lay woo nga ñëw ñu ànd daal di dem taaral bés bi màggal bés bi ah ñun waa Daaru Salaam daal xam naa ne moom ñaan nañu yàlla yàlla ñu yàlla dafa jàmm waaye kenn duñu ci jiitu. waaw bii yow boo waxee boo woowee say sa say client ñu gëm ko may fàttali na bi génn na képp ku ko bëgg mën nga ñëw fii ci restaurant Daaru Salaam fii ci marché midina di nga ko fekk bigee mu Serigne Saliou moom lañ tuddee bis bi bigee mu Serigne Saliou bigee mu maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp sa xàññi Fall maamam la te ñu ngi fii ci biir place am dañ ko am mu Serigne Saliou loo ko wax lu dul Serigne Saliou gëm la ku mu gëm bàyyi Serigne Cheikh ku mu gëm bàyyi Serigne Mourou Moustapha bàyyi Moutala Jile ak Bas kooku la doyloo bigee tey ñoo fi ñëwoon ànd ak fondation Serigne Saliou ñoo ngi waaj bis bi bis bu mag la fan lay amee fii si Grand Théâtre boo amee 5 Casa bàyyi ñu waa Marrakech waa waa Meknès bàyyi képp koo xam ne mbokkum taalibe murit tijaan xaadar ñu ngi lay woo ci bis bi di ci woo waa Majorel waa Intesia waa kenn ñëpp képp koo xam ne soppe ko Sayer Tall ñu ngi la ciy woo ci bis bi bis baa ngi noonu nañ ko waajal fondation Serigne Saliou feggoo ki ñuy wax Mbacke Seck mu PDG fondation Serigne Saliou bii nga yàlla na yàlla dafa tawfeex yàlla na yàlla dafa moom social loolu la sa bii nga social la mu ngi noonu bii yaa ngi noonu na ku ko soxla ñu entrée 100 dirham la VIP 200 bii gi moom Serigne Saliou kii ku ko xam-xam ko social ku baax la kuy def lu baax la fii ci dëkk bi lu ñu mës a taxawal ci dëkk bi dugal na ci loxom yaayu daara la ndeyu daara la ah kon nañ ko waajal bis baa ngi noonu la 31 décembre. du yomb bii nga du yomb déedéet du yomb. barke Serigne borom Touba du yomb. maa la wax loolu. waaw ah, barke lakk suñuy dibi. jeex na loolu. dañuy lakk suñuy dibi. bilaay. Sénégal jëm kanam. dibi yu neex yu saf sap te tàng ñu koy def ay agneau ak lan. ay agneau ay côtelette gigot bawuñu dara dama ne képp koo xamante ne xam nga ci Daaru Salaam ci safle rek ñëwal ñu ngi lay xaar. dibi yu saf sap yu neex cant dibi la dañuy cant comme ñun loolu la ñuy sëriñ Saalu tàmmal. dañuy cant tey bég tey bégle da si fa ñu ngi ko ci woo ci bis bi di ci bàyyi ñu ci kenn di si woo ñëpp nañ ko waajal biigee mu Serigne Saliou dana def dibi yoo xam ne dana neex dana tàng dana xoy xoy woo maa la wax loolu bu kenn jënd reer rendez-vous le 31 décembre à ne pas rater fii ci Casa incha allah ravi waajal ko tey nag dañoo seet si sunu doomu nday Mor Diop transfert ah boo dikkee ba marché Médina nga fekk ko fi ah di liggéey di ko rafetal di ko jaarale ci yoon ku ko déggul xam nga ko tu ko ko ñu ko waaja ndaka la koy waajalee mook soxnaam nday faatu kontaan euh, bu baax a baax parce que tamit euh, euh, li nga li nga def dafa sedd sama xol wax dëgg yàlla li def dafa sedd sama xol trop vraiment ku baax nga ku baax nga ku am yitte ci doomu aadama nga ñu bari dañ naan wax man a yow dañoo nekk ay comme ay maga rak loolu dëgg la loolu tamit mu nekk lu ma neex wax dëgg yàlla yàlla def loolu tamit yow tamit nekk lu mu neex la lool parce que tamit wax dëgg yàlla lool ba ma la xamee ba léegi loolu ngay jëfee sama diggante ma ak yow mais loolu moo waral yii yëpp mais nag wax dëgg yàlla euh, ji nga ma jii nga ma teraanga daal wax dëgg yàlla parce que li nga def ni lu rëy la ci man ci lu lu lu kawe la ci man wallaahi kon nag li may wax mooy que ne instant yooyu dinañ ko préparer bu baax a baax euh, woo ñu mbokk ñu ànd ak ñun ci bés boobu ñu ñëw jëmbal ko incha allah bu neex yàlla dëgg yàlla di nga xam ne seq nga ko góor incha allah yàlla baax na ko yàlla yàlla def jaam daal bay àgg si jaam incha allah ah kon kàddu yi xam nga ne mënu ci woon ñàkk comme ni ko ci Mor Diop yëkkatee sama doomu ndey la sama waay la sama xarit la macha allah wax dëgg yàlla li nu koy ñaanal mooy yàlla defal ko sutura ak jàmm te it nitu social la nitu social la bu ma ko waxee rek am naa lu ma ci xam lu bëree bëri bëri li tax ma téye ko loolu ca la bokk nit daa feebar fii yàlla seede na ko damay ñëw ni ko ordonnance waa ngi ni mu jënd ko jox ma ma dem yóbbu ko kon loolu lu rëy la ci man xam naa ne loolu ba tey moo tax ma jàpp ko loolu mooy bis kon na ko ñëpp bokk waajal entrée 100 dirham la VIP 200 bii boo ñëwee ci Mor Diop mii di nga ko am incha allah rabbi kon ñu doxal ba ca kanam incha allah rabbi nga xamante ni amul lu dul sëñ Babacar Sy waaye nag bis bi bis guddik Serigne Saliou la ñu woo ci ñëpp woo ci suñu mbokk Tidiane yi ñaseen ni laayeen ni bàyyiwun kenn ñuy laaj awa ceeb ndaka lay waajale bis boobu nga xamante mooy bis 31 décembre di guddig Serigne Saliou Mohamed Niang war a jóge Sénégal ñëw a ah, teew ci ñu koy laaj ndaka lay waajale bis boobu salaamaaleykum Mbacke maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si ne sa tur ak sa sant bis bi moom le 31 ñu ngi koy waajal fi marché bi Médina bi ñëpp nee nañ ñu ngi waajal bisu Mbacke bi ci jàmm ak salaam ñun ñëpp dinañ dem bu sooba yàlla ñu ngi koy waajal pare nañ ko ñun ñëpp incha allah dina neex dina yëngu bu sooba yàlla man mii cantaakun laa xam nga ne mu xamee Niang fu mu wootee fu ne dama fay teew dëgg du neex <laughs> ñu ngi koy waajal yée loo xalaat lu ne dina fa am waaw <laughs> salaamaaleykum maa ngi nuyu su si nekk sa tur sa sant waaw bésu Mbàkke bi moom ñu ngi koy waajal moom ñu ngi koy waajal moom ñoo ngi waajal lu rëy ñoo ngi waajal sañ-sañ yi lépp lépp daal ñoo ngi koy waajal waa du yomb Mbàkke rek du yombu de ak ah, rek lépp sañ-sañ yëpp yëpp Sénégal lay jóge ñu ñëw wàcc morok ba zéro lii laa wax man <laughs> Mouhamed ñaa war a jóge Sénégal teew fii ci bis bi ah ñu bëgg koo ànd ak suñu mbokki taalibe yëpp tey nag dañ fee fekk si sunu mag sunu xarit muy caw a ah, mu nekk ci dëkk bi ba ba léegi di nu conseil di nu jaarale ci yoon ah ñu koy laaj guddi gi naka la koy waajalee. fépp foo nekk bon da fa war a wone sa bopp rawatina nag ngeen di wone loo xamante ne moom la ñuy dund senegal guddi gi nag ñu ngi koy waajal ñun ñëpp waa Maroc bàyyiwuñu kenn bo Casa Rabat Marrakech Tanger yëpp fépp fu waay nekk. incha allah la 31 ci guddi gi ñu ngi ñaan yëpp ngeen ñëw ñu feete guddi gi ci jàmm vraiment Mbacke suñu ràkk la euh, jàmbaar la aussi vraiment di xale bu jàmbaare tey dégg ay conseil kon tey jii bu wootee lépp lu ñu mën a jàpp dañ koy bàyyi fexe ànd ak moom ci loolu nga xam ne lu baax la te ñu bëgg ko jërëjëf. asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum waa Maroc ah, bis bii nga xamante ne moom la ñuy waajal muy guddik 31 décembre di guddik Serigne Saliou waaye tey dañ fee seet si soxna Penda Ndiaye ah Serigne Seydou di ku baax di ku bëgg Serigne Touba waaye di taalube waaye nekk ci dëkk bi defu fi waxu fi ba mu fi nekkee ba tey macha allah ku ko xam-xam ko ci gor nekk gor lu mu wax dëgg la Penda Ndiaye ah wax dëgg yàlla ku mu nga xam ne féete naag ak yow barki yonent bi. di yaay Cheikh Ibra nag min tuddee guddi gi Cheikh Ibra Fall mu ni ma aw ma lu mu dul benn doom bu góor boobu ngeen tuddee ko du bis bi kon Seex na Penda Njaay a doomu Bambey bi lan fekk fii nag a ba toogee ba léegi jógul nag macha allah fa tabar fa kàlla ñu di ko laaj rek Penda soxna Penda nooy waajale guddi gi doomu ndey Pam Buub kon nañ lay laaj naka ngay waajale bis bi. asalaamaaleykum <laughs> yow Mbacke loo yëngu dama ci naan dama ciy yëngu yow danoo bokk maa ngi nuyu ñëpp yow danoo bokk yow ñoo bokk bawal yaa nga dëkk gaawaan maa nga dëkk Bambey te xeeboo ma benn yoon Maroc teg nga ma sama place respecté nga ma def nga lépp guddi gii nag nga jël sama benn doom bu góor bii tudde ka ah dana mel ne sanguwaay kum naq dana mel ne ba ba ngóor jaayee mbaam na nopp ya dem doo ko defati dangaa laal laalaak sama doom ji macha allah doo ko defati ki nga ki ngay indi tamit di Mouhamed ñang ñu ngi koy xaar sant cant katu Serigne boobu di invité nag Pape Mboup sama rakk jooj nga xam ne noo bokk ndey paa mbuub laa bëgg mu ñëw mu ñëw ba ne rajax ndax damaa bokk ak moom nday muy mu bëggul ku dul Seex Béthio gëm ku dul sañ gëmul ku dul Saaliw ma bëgg na nga andil ma ko sama rakk jooju ñoo bokk nday te daa bokk ak yow yaam ba mu toogee ba tey jógul kooku dara jomb ko paa mbuub andil ma ko waa kay. boobu nga xam ne Mouhamed Niang daa war a jóge senegal ñëw ànd ak estafam muy c'est la première fois mu am fii tey na ñu di ko laaj mu Moussa Massamba ndaka lay waajale bis boobu waaye nag maa ngi wax mbokk taalibe képp ku soxla billet na nga ñëw ci Massamba boo dukkee ba ci marché Médina boo laajtee Massamba Diouf Massamba sëñ Abibu boo ko laajtee ñu wan la ko incha allahu rabi dina la jaay bee. ci organisation lépp rek fi mu ne lépp yemb na dañuy xaar rek bis bi ñëw incha allahu rabi ñu ànd ci dem ci am ci ndam ci barkeb Cheikh Saliou Mbacké ñu ngi ci woo ñëpp waa Maroc gépp rek bàyyiwun kenn ñu ngi ci yi nekk marok yëpp consul ak vice consul ñëpp ñu ngi leen di woo di woo Cheikh Bamba Touré ak euh, sëñ Massamba képp ko suñ ceek sekk iPhone ñëpp rek ñi ngi leen ci woo ci bis bi daa xam ne bis boo xam ne nii la dañ ciy delloo njukkal ay kilifa yu mag yu nekk ci dëkk bi ku ci mel ne sëñ Abdou Doon Mbacké ku ci mel ne Serigne Am Mbacké Mouhamed Diagne moom Serigne Saliou Jëwrin Moussa ñoom ñëpp war nañ leen cee décorer sëñ sëñ mus Moustapha bu congela di sama xarit baax lool ñëpp daal ñi ngi leen ci woo bii tamit comme nu nga ko waxee disponible na suba incha allah rabbi ba la la 31 rek soo loo ci bëgg rek boo ñu woowee incha allahu rabbi choré 26 43 65 81 incha allahu rabi loo ci bëgg fii ba foo nekk ci Maroc rek dana la fexe nga jot ci incha allahu rabi ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ngeen jëf